gars yi ñu dégloo waay jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di nuyu géwél yi yéen loo leen bokkul neexul ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar waaye balaa ñoo def dara balaa ñoo def dara dañ fay fekk ay responsable politique di ay xale yoo xam ne ay ndaw dañoo nekk ci gox bi bokk ci xale yoo xam si ni ñu ngi jàppale mbër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci gox bi ñu gis leen fi tey balaa ñoo def dara dañ leen di nuyu di leen siyaar bas. waaw sëñ Fallou xëy nañ la bu baax bon ñu ngi nuyu population bi ñu fekk fii yëpp bon di wax ni fii moom amuñu fi cadre benn cadre bi benn la muy suñu champion Vito donc moo ñu tax a jug tey ñëw pour soutenir ko wax na ko jeunesse bi yëpp ñu ngi ci ginnaawam incha allah pour jàppale ko ci moralement financièrement ñun ñëpp ñu jàppale ko xam ne mooy suñu champion. waaw Vito la am ñun jàmm gën si Kambaaw surtout fii nii sam-sam 3 1 2 yëpp jeunesse bi yëpp nañu jug xam ne tey kii jàmm gën si Kambaaw la ñu représenté. donc comme jàmm gën si Kambaaw la représenté ñun ñëpp nag bu mu ñu gën gore fu mu taxaw bu gëstoo nañu gis na yëngal na yëngal ci kaw moom mu yëngal ci suuf ñu am ndam jàmm gën si Kambaaw jëm kanam. jërëjëf. jërëjëf naka ngeen di gunge xale yi nga xam ne tey jii. kii mooy bii mooy première sortie ci grand combat noo leen koy gungee en tant que yéen responsable politique. loolu fierté la parce que wax dëgg yàlla Vito bi ñuy xamante du tey bi muy bëree grand combat bi muy bëree petit combat. donc muy muy daan di ñu invité fii nii sargal yi muy def donc ba tey muy bëree grand combat donc fierté la pour ñun donc di wax ni incha allahu rabbi euh, jam gën si Kambaaw ñu ngi ciy woo responsable politique yëpp. dans le département de Pikine aussi képp kuñ ci xam pour mu mën ko jàppale dinañ ko wax mu jàppale ko mu xam ne bii mooy premier grand combat am te mooy suñu ndam incha allah. am nga question fee Babacar loo koy. ah sëñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax. Vito ki muy bëreel yaakaar naa ni fa mu dëkk ku ku la xam-xam si côté mobilisation yaakaar naa ni gis nga arène bu fa ñëwee ni fay def. Vito di ndaw war a bàyyi ko jàmm gën si kaw mbaaw côté mobilisation li nga xamante ne nii mooy ticket yi ndaw yi loolu laa wax léegi dama ne Vito suñu donc lépp lu ñu mën pour jàppale ko incha allahu rabbi dinañ ko def te dans le département de Pikine wala à l'échelle nationale képp ku ci nit aussi dinañ ko wax ne ko kii lu mu ko defal ñun la ko defal te inca incha allahu rabbi dimanche soreetul lépp lu ñu ci mën a jàpp dinañ ko jàpp pour jeunesse bi mobiliser wu ànd ak seen champion incha allah. jërëjëf merci Père Gas Père Gas yaa fi ne ngay sunu mag di sunu lépp ah balaa ñoo def dara di la jox kàddu dañuy bàyyi Vito mu nuyoo. bu ko defee ñu dugg si question yi ah. Vito ñoo ngi lay nuyu. waaw Fallou maa ngi lay fay waaw ginnaaw ba ma sant yàlla julli séentu di sant sama ñaari waajur di sant sama papa di sant sama yaay waaw di leen ñaanal gudd fan ak waaw di sant te tamit waaw lépp rek gars yi di sant Abdallah Abdallah di ko sant bu baax waaw jooyu ma dara balaa mu taxee ba léegi maa ngi koy ma dara lu ma soxla mu ciy dox waaw sama mafia bi ay suri Zébu Fora Aliou Fodo waaw ay Kader Kader waaw ay Ngari Fora Ngari foora ay ñoom Issa ay ñoom Issa ñoom Ousmane Ndiaye gaayab yaaya balaa woote Vito di nga woote mais wuy ma di sant ñëwal ci combat bi parce que bii mooy sa premier grand combat ngay bëreel adversaire bu naqaree bëreel waaw man bii mooy sama premier grand combat dëgg la mais man sama premier combat arène man ñu ma bëreel musuma bëreel ku ma tollal doole man mbëri ma bëreel ñëpp moo ëpp mais damaa jaante reyante xare ba àgg fi ma àgg waaw ñun bis mënu ñoo dépassé bis mënu ñoo yéem parce que façon mbër bu ne laa na ak moom man mbëri may bëreel yëpp seen avance koy daw man lekk ko def fulaak fayra yàlla ànd ak man vi Vito xale bi ngay bëreel dafa danger gaaroo gaar xale bu danger leen kooku ngay bëreel du ay wax même ñëwal ñëwal ñëwal si làmb la bokk ñëwal ñëwal waaw mais mbër mbër boo bëggee ñun nangul la da ngay daan mbër boo bëggee ñu ne champion nga foo ñu ne ah boobee jàmbaar la dangay ngay daan mbër waaw man damaa yàgg jàmbaar la ngonk yi kon man ngonk yi mun ñu maa yéem te bu ar bi siflee nga ne lan ngonk yi xam ni ngonk luy ngonk mbaam sëf yi damaa yàgg jàmbaar la ñoom waaw te ngonk façon bu ne am naa ko te bu ar bi waatee loxom li ma bëgg a def nit duma ma ko tee def dinaa toog si tànk yi dinaa dóor dinaa xeex dinaa bëre ñu gis ne ñu gis ne si combat bi ñu gis ne si combat bi da nga see yokku poids poids bi nga yokk nag poids bi ñu gis nga yokk ko ci combat bi. waaw poids bi waaw c'est normal waaw poids bi du poids pataade dama ko liggéey waaw te ku ci dugg di nga xam ni man sumu waa ji booy liggéey na waaw du ma wax nag mais bis baa bu wàll bi waxee loxoom bu buñ dalantee ma ak moom dina xam ne xale bu ndaw la dalanteel waaw. Père Gas maa ngi lay nuyu. waaw mais Fallou maa ngi laa fay. lan waaw di ko ñaanal ah di ko ñaanal euh, jàmm ak salaam parce que suñu fils la. tey yaakaar naa tamit aussi ku ñu jox cër la kon tey yaakaar naa tamit aussi tey buy def grand combat tey yaakaar naa jàmbagar si kàmbaaw yëpp ñooy génn yaakaar naa euh, monsieur le maire dégg ni mu ko waxee léegi tamit aussi gis nañ fi waaw loolu loolu moom am na moom loolu am na kii sama fils la mbëri fi nekk yëpp tey samay fils la ñu tey ñoom ñëpp looloo tax tey boo peut-être dama doon liggéey si mais gis nga cër bi ñu ma jox ma kaay taxaw ci kanamu Vito parce que nag làmb tey ren euh, yaakaar naa ku ko wax fi au jàmm jàmmgat si Kambaaw man ngay jàppale parce que ba may taxaw naan tey fépp fu ñuy tudd làmb dañ fa tudd jàmmgat si Kambaaw booy yii boobu ay mbocc lañu tey nag yàlla jàppale na ma loolu ba tey ay ay champion génn fii gis naa fi ñoom feu rouge ñëpp gis naa leen fii nga xam ne ne tey jàmm gën tey ñoo xewlee kon tamit aussi gis naa fi président Nar Sall bi nga xam ne aussi mooy yore mouvement Dekkil sa gox moom it aussi di soutenir ki nga xam ne aussi mooy xale bi li may ñaan askanu jàmm gën si kàmbaaw rawatina tëli Mam Diarra Vito tey arène nationale ñun ñëpp ñoo fa war a euh, feesal dell dell dell dell ba nga xam ne nii bu ëllëgee si biir promoteurs yi dañ ko euh, dañ di sawar di ko tëgal làmb parce que gis nga mbër mu amul ay supporters bu la bu la neexee bu la neexee nga dem tëdi tëdi nelaw kon ma yaakaar naa yéen yéen yéenay dooleem yéen yéen a war a jënd ticket yi dooleel ko waaye yéen ñi nga xam ne aussi yéen la yàlla dénk bopp moomeel bi xale yi chaque fois dama koy wax maire bu fi ñëw ma ko ko wax nee leen ni ngeen joxe situation yi nga xam ne aussi mooy ASC yi écrit yi du ñoo am récépissé association yi tamit aussi du ñoo am récépissé mais récépissé bi ñu am bañ leen di bañ leen di dompal leneen di leen ko jox tamit aussi écrit tamit aussi noonu lañ ko war a defee yaakaar naa man lool moo mas a nekk sama fayit te yaakaar naa le nouveau maire bi di ñëw euh, amaguñu audience ma moom mais saa ñu amee audience loolu dinaa ko wax et situation yi il faut ngeen koy jox écrit yi parce que ñoom ak ASC yi ñooy bokk yem ay doomu dëkk bi la ñu kon fallu maa ngi gërëm tamit aussi suma confrères yi. mais mais xale bi euh, bi mooy premier grand combat am bi muy bëreel dafa danger te sa rakk la loo koy conseil ak loo leen waajee. non xam nga man nag xale yi bu may wax ak ñoom ci ruq laay wax ak ñoom ci ruq ma sàmm doo xam ma dem doo xam parce que mbër bu ma xamul tey soo ma tey gauche lay teg wala droite man la nii la koy daanee am na mbër yoo ngi ñoo xam ne ñoo ngi fii te xam nañ li ma leen di wax. dans trois jours mën naa laa wax ne combat bi ni nga ko war a te boo ko defee def ko incha allah rabi yàlla dina la may ndam te kon yaakaar naa kii mooy li ma la wax daa am fu ma féete ci man ma am fu féete ci moom kon di ko ñaanali rek suñu boroom yàlla may ko ndam bu baax a baax parce que xam nga comme ci média la ñu nekk yaakaar naa tey euh, c'est la première fois nag ma def li ma lii c'est la première fois parce que dama ne man bu ma nekkee ci média warutuma am far ak am ku may faral mais nag kii sama doom la kii sama doom la dama koy ñaanal yàlla yàlla may ko dam yàlla may ko dam ba nga xam ne ni bu ëllëgee si bu ñëwee fii feete ko kon nag vraiment maa ngi sant ñëpp di euh, sant la presse euh, parce que nag ñoom it aussi luy ji ak ñoom la euh, tey ji képp ku fi siiw boo jaarul ci ñoom yaakaar naa tamit aussi tey doo siiw gis naa fi léegi sama fils tamit idi ak sama sama médo tamit aussi maa ngi koy jaare waat bu baax a baax kon yaakaar naa fàllu loolu rek la maa ngi jégaluwaat nag bu baax a baax jërëjëf jërëjëf euh, question yi gars yi ku ci am question booy euh, li nga xam ne mooy ay Aïcha Babacar. Vito lan moo la dugal si ki nga xamante ni mooy gaar a xam nga ko beneen question bi mooy adversaire yi nga daan bëreel ak adversaire ak gaar gaar différence bi lan la. waaw gaar gaar lan moo ma boole ak moom rek. waaw man dama man dañ ma jox si combat bi dañ ma jox trois adversaires yoo xam ne ku mu ma jox boo demee bési bi da nga delloo avance bi. waaw ñu dem ba xool ni moom instant moom tamit nangu na bëre man. Hmm. moo tax ma jël ko mais tamit man. du tey laa commencé bëri am lu yomb man sama lamb yëpp boo xoolee ñu si bëri ñu mëpp doole waaw affaire bi daal gëm-gëm la rek ak seng waaw wax dëgg yàlla te liggéey naa li liggéey naa liggéey naa li daan gaaro gaar te bu soobee yàlla dinaa ko confirmer lu ma yàlla may ma jël man amul mbër bu may bàyyi xel ku ma xasee lekk sa avance damay jàpp ni man dama lay daan waaw loolu laa gëm mais dama lekk yi nga daan am adversaire yi nga daan ak gaaro gaar différence bi lan la waaw mais gi nga adversaire booy sóoraale ay qualité ak li mu mën da ngay sonn waaw mais mbër yow li nga mën ak sa qualité ak desenseng yow indil loolu waaw mais man du ma bàyyi xel mbër ak li mu mën man sama mënin ak li ma liggéey laay ñëw confirmer ko waaw loolu laa gëm waaw lu indi nag moom moom la concerné mais man li ma war a def dama koy def ñu gis ni sa combat bi mujj bi sa diggante ak ndoy vitamine ngeen bëre ko combat bu métti dem àll ba yéen ñaar ñëpp ngeen daal di bàyyi ñu bëri ne combat bi euh, Vito li mu si musculé dafa bari moo ko yóbbee li mu am moo ko yóbbee lii nii nga am si ndam yaakaar naa par décision arbitrage nga daan waaye yaa mujjee daan nga jëm jàkkaaroog gaaroog gaar bokk na si xale yi nga xam ne ñoo gën a tëj ci làmb moo leen freiné bu jugee deni bi na ndoog yëpp topp ci ginnaaw bi mooy sa premier grand combat nga dongali udi arène nationale wàccaay noo préparé nga xam mooy gaaroo gaar waaw gaaroo gaar waaw moom la gars yi wax de nañ moo gën a tëj gars yi mooy gaar ndal ñi waaw mais tam bu subaa ma ne d danañ ma tam danañ ne la bu soobee yàlla nga la wax danañ ne booy bi dëmm la kooku gars tam nañ ko mooy gaare booy man bu jour waa man dinañ ma tam dinañ ndekete booy bi dëmm la waaw dama ko may dara. Aïcha ñëwal ci Karbala Karbala question gars yi ñu dégloo ñu dégloo Karbala. waaw ginnaaw bi ñu nuyoo vidéo ba pare di laaj ak jàmbaar yi ndax dañoo gis làmb ji bu mu ko jëlee Bamba laxasaay la ko tuddee woon diggantam ak Baye Fallé nañu ko wax. waaw Bamba laxasaay waaw moom laa tuddee làmb ji. Bamba Laxasaay sama waay la sama waaw ñoo foondoo sama lépp la waaw te booba léegi man sama waay musul ñaaw te mi ngi jàpp si làmb ji gis naa jéego yi muy def wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla soutenir na ma si làmb ji moom mooy loolu waaw a gars yi yëpp ay ñoom gambis waaw man daal ñii laa am parce que Serigne Touba Mbacke waaw ñoom bu ñëwee sama ginnaaw rek man amul lu may ragal amul lu may tiit waaw parce que booba léegi ba muy metti premier combat gisuma kenn ñoom laa gis ba tey jii nii musuma am ku ma jënal bloc lu daan wax laa ba léegi man kenn musuma jënal bloc waaw jàmbaar yi jàmbaar yi jàmbaar yi jàmbaar yi ñooy ñëw jàpp si waaw mooy loolu daal waaw waaw di santaat booy ne si ginnaaw rek ñoom sëñ bu mag ñoom ceer ñoom sëñ bu ndaw gaay ñoom ceer pugulu sëñ bu mag bilaahi gaay yëpp waaw sama gaay ne si ginnaaw du leen fàtte ay ñoom sëñ bu ndaw ay ca nañu ñëw ci question matu

waaw parce que tamit du ma nekk xale entraîneur ba gàmbaay yëpp sonn si sonn si di daj coono ma leen ni woon ay ñàkk de confiance loolu du ma ko def waaw ba ba may dee damay wane confiance. non déedéet du ma yóbbee làmb ja mais tamit ñi ngay àndal fa nga dalal seen xel nga xamal leen man pare naa waaw te man dama leen xamal ne pare naa ba keroog arbitre di wàcce loxom te dinaa wane fulla dinaa wane fayra du ma maye dara te lu ma waaye may ma jël waaw. waaw mbër bu nekk ak nu ak nu ngay bëreeg moom quoi waaw nekkul combat yëpp ngay ñëw rek bëreeg ñoo bëreeg lu la neex lamb bu nekk ak nu ngay bëreeg moom te si kattanu yàlla lamb ji gars yi dañu xam ne lamb ji naa ko bëreeg expérience ak xel mu daal si kattanu yàlla suñu borom du ma si may dara Vito gars yi liñ la wax gaaroo gaar champion la yow champion gi est-ce que di nga dëggal sa bopp jàkkaarloog gaaroo gaar xeex ak moom bu jour ba ci laa dëkk ci laa dëkk dëgg sam bopp jàkkaarloog moom déggoo ma de maam Cheikh Rafal ci laa dëkk déggoo ma de gaaroo gaar man du la man du ma may dara te boobaa laa la wax dinaa dinga dinaa mel ni bukki bukki si yàpp man du ma may dara waaw xam ndax loolu xam ndax loolu balaa mu taxaw ba léegi damaa jël samay responsabilité man maa jël samay initiative ma ne man laa mu ji maa ko jël ñëpp ne ma daanele si man dinaa ko liggéey à ma manière liggéey ci doole ju bari ah toog si tànk yi suul tànk yi reyanteeg moom waaw mais bu sooba yàlla 19 day métti rek mais drapeau dama koy indi fii mais drapeau ki ngay bëree mooy Mame Gana Kébé responsable politique bu Kër Massar drapeau bi nga bëree muy drapeau kilifa. waaw tamit loolu dañ ciy sant yàlla waaw parce que bëre drapeau boobu rek gën na tax ma gën a rey sam bopp parce que xam naa bu ma ko jëlee fi mu may yóbbu waaw ak li ma ciy am drapeau boobu noonu gën na tax ma gën a rey sam bopp waaw ba tey ku mel ni waaw Pape Gueye tamit keroog bañ demee gis nañ li mu wax waaw moom champion la day jàpp si bagage yi Pape Gueye moom wax dëgg yàlla amul xaar ma yàlla amul mbër mi fee la dëkk amul mbër mi faas la dëkk amul mbër mi fël la dëkk moom da ngay ñëw nga wax ak moom mu waaw mu accueillir la jàppale la waaw yàlla ko yàlla taxaw Pape Gueye waaw ndax bëgg naa nag ngir jëmbi Serigne Touba rek oo ma politicien oo ma dara dimbali ma si bolog yi Pape Gueye waaw Loxsaar ngir yàlla Loxsaar yow it Loxsaar yéen bi lu ma si benn bolog log ba mu ne dimbali log waaw boobu léegi mais Bas Touré tamit ba ma bëre ba léegi mu ngi ciy jàpp Bas Touré ak ñoom seen Ndiaye waaw yen tamit billaahi wallaahi jàpp leen si ngir yàlla ak naar naar borom borom kii waa kii sa gox naar dekkal sa gox waaw waa dekkal sa gox naar président dekkal sa gox naar waaw gis nañ taxawaay mais ngir yàlla rek man soxla ma xaalis bolog laa bëgg booy mën a dem estat parce que sama nawle laa ko sikkal bëgg mu mu yóbbee ma dara comme lu ko père gas waxee rek waa jamono ji làmb teer la te boo amul supporter promoteur duñu sawar si yow yàlla ma yàlla may na ma mbooloo mais au moyen dañ ma mooy ay bloc booy dem stade billahi ak Habib Habib pe détaché parce que caaray tamit ah Habib si waaw samat samat ma samat tamit Abdou Samat waaw mu jàpp na si Abdou Samat ak Laay Bata borom Fora Laay Bata borom Fora Laay Bata waaw jàpp na si waaw Karbala tamit di la sant yow it Karbala boobu ba léegi yaa ngi siy jàpp war na Serigne Touba di sant waa Sam waa Touba ñoom Baye waa Sam di leen waaw. bilaay Laye Ndiaye borom Fora Laye Ndiaye waaw G ay kaldu kaldu Fora ñoom ñëpp jàpp nañ ci gars yi. bilaay est-ce que yaa ngi soog a bëree grand combat euh, te yaakaar na te aussi am na benn nouveau euh, euh, règlement bu ñu génne est-ce que comprendre nga règlement bi ba nga xam ne nii jour boobu da nga ko sóoraale ba kenn du dagg sa sa sa sa sa dara. waaw lépp lépp lépp rek man maa ngi topp si ginnaaw abo robo. waaw samay coach tamit waaw wax nañ ma si expliqué nañ ba lépp te bu soobee yàlla bis ba erreur benn erreur du am niñ ma ko waxee naa ko defee noonu te benn erreur du am si kattanu yàlla waaw jërëjëf waaw jërëjëf mais mais ma sant waaye di sant waa tali maam Jaar xanaa santaat waaw dimbali ma rek parce que man ñi ma war a sant dafa bari billaay ñi caabi féetee ginnaaw sëñ bu mag sëñ bu ndaw ah Thier Pugulu kii ni maam Balla ay ñoom Saara billaay ñoom ñëpp barke sëñ Touba ak journaliste yi maa leen sant yéen lii dafa rafet yéen ñëpp maa sant leen gërëm waaw Sele di ko sant Sele di sant Papa Dia Baye Pap waaw tonnerre sa teewaay rafet na su njata ay fóotu siri jaamu gën sama grand ñàkk jëriñu kontaan naa Abu Ndiaase billaahi lii day won ne xam rek ñëpp ñoo fa ñoom suñuy grand waaw lii kontaan naa trop waaw waaw si ta naa ñëw mais daa am ndog-ndog mais yàlla mooy loolu billaahi sànje bi waaw yaa mu gën a xam waaw di santaat gaa yëpp laay pata borom fora bilaay a laay LS Pro laay LS Pro mama solal laay LS Pro waaw baay kontaan naa jërëjëf merci